Euh, dernier aspect waxu loi d'amnistie bi ñuy wax. waaw loi d'amnistie bi qui va découler d'ailleurs euh, du du dialogue bi ñu nar a convoqué nga xalaat ci loi d'amnistie. xam nga waxoon naa ci bële passé bi ñu ko yëkkatee. Mhm. dama leen ne man xam nga am amnistie mooy lan ñu ne diggante daaw ak ren wala diggante ñaari at yi weesu képp ku fi def njombe lii ba xam ne loi bi da ko sanctionné. Euh, effacé nañ ko moom mooy oublier mm-hmm. balaa ñu ko def day fekk ñu jugé ko ba voie de recours yëpp jeex nga xam ne amatul kenn ku ko mën a song ci wàllu tool donc loolu mooy ñaari condition non non non mooy lan quand le procès n'est pas euh, engagé dañuy abandonner les poursuites pour voter non, la loi d'amnistie déglu ah. mais couvrir fait par une ni si loi bi mooy wax yan fee la ak ban période la. léegi ku tombe ci biir muy sa sens man dama ne d'accorduma loi si ci affaire xaalis lépp luy xaalisu nguur gi même bu dee dërëm d'accorduma ñu amnistie képp ku am problème mu xaalis bu fekkee ne yow ni nga ko poursuivre baaxul nañu reprendre procès bi ñu jox ko dëgg setal deram pour man d'accorduma amnistie ci affaire u xaalis deniers publics parce que loolu c'est un précédent dangereux parce que diggante ñaari fan mën nga fi toj keesu état boo xam ne bi li muy yàqal population yi ci wàllu santé wér-gu-yaram c'est 30 ans c'est extraordinaire donc loolu waruñu sax dugg ci loolu loolu laay wax c'est un précédent dangereux le jour où on commencera ñu ne dañuy def amnistie maanaam dañuy faase ay ñaawteef ci wàllu luubal yàq nañu Sénégal ci wàllu crime nag. ak loolu ma yow d'accord nañ donc man sama première limite mooy ci wàllu luubal lépp nag lu jëm ci wàllu crime ci wàllu xeex ci wàllu instabilité ci wàllu procès politique loo xam ne dafa am relan politique comme histoire Ousmane Sonko ñetti procès yi mu am yëpp dafa am relan politique prisonniers politiques yi yëpp dafa am relan politique loolu mën na mën nañu nangu amnistie am. ba si ñu jiñ ne dañu rey nit. mais terewul procès il faut que mu am cest di que même boo leen libéré da nga war a tëgg procès ba procès bi joxe décision nga doog a xam nooy def am na ñoo xam ne ay prisonniers politiques lañu mën nga leen libérer pour apaiser la situation mais dafa am préjudice yoo xam ne yii boo ko tegee nit dañ ko war a réparer loolu yëpp mun nañ ko rek mais loolu man sànq. mais mais bi ñuy wax. maintenant da nga wax affaire crime pour man. quel que soit Alpha les responsabilités doivent être situées pour l'histoire les responsabilités doivent être situées moo tax am na dëkk yoo xam ne dañuy def comité réconciliation vérités ba pare vérité réconciliation dañuy vérité c'est très important pour ëllëg mu bañati ñoo dal loolu def ko laaj te loolu bu ko defee dëkk bi dina calme ñu indemniser ñi war a indemniser ñu xam fan la responsabilités yi am ba pare dafa am benn paaru sutura bu am solo comme li ñuy def ñun ci wàllu douane li ñuy wax transaction dangay ngay def infraction nga reconnaître na lii tooñ nga ñu ne la tooñ nga lii nga yàqal état bi fay ko nga fay ko mu signé mu signé te du jëm kaw. mais dañoo boo matul procédure d'urgence lañ koy def boo matul dinañ dugal proposition de loi bi ci conseil des ministres bii di ñëw suba dem voté ko assemblée nationale. waaw xam nga loolu laa doon wax ci amnistie de façon générale maintenant li ma mënul nangu man. que ñu poser amnistie bi comme condition pour accepter le report. mais c'est le euh, dina am. Ah, ah. <laughs> débat bi posé wu na. waaw man lu ma mënul nangu mooy ñu poser dialogue pour accepter le report. pour hmm. man report bi c'est une violation boo xam ne bii conseil constitutionnel képp lañ ciy déglu bu paree. la président de la république jël pour certains et pas des moindres. la tentation est. ah man de maa ngi xaar ba gis parce que ñu ngi ñu ngi annoncé euh, seen ñu ngi annoncé ñoom Alioune Tine ñu ngi def des annonces euh, ñii naan euh, dinañ leen libérer ñii di naan ñoom bokkuñ ci dialogue mais gars yi nee nañu. ci hmm. dialogue ñoom nangu nañu dialogue dañoo xamul luñ koy assumer. devant leur militant mais nangu nañu tooñ baaxul non déedéet man damay rapporter rek. mais nangu nañu nangu nañu dialogue non non non amul da ngay rapporter man li ma am comme li ma am ci information mooy que amul kenn ku accepter le report ñu ngi liggéey ensemble dans le cadre de F24 ñoom ñëpp dañu hmm. affirmer ne d'accord uñu ci reportu hmm. élection maintenant Boubacar te ngaa waxal sa bopp rek dé déggu lu ma la wax dama ne la man li ma am comme information ma ne ma ne waxalal sa bopp rek ça m'étonnerait non déglu rek man ça m'étonnerait waxalal sa bopp rek waaw mais déglu rek ça m'étonnerait man ah. Ça m'étonnerait de voir quelqu'un qui est dans l'opposition, qui est dans le cadre de F24, qui accepte le report de l'élection en décembre loolu laa am man comme information nit da ngay wax sa àqu lay taala. d'accord libéré nag. dëgg ba yeggali c'est c'est le politiquement correct bi bi nekk en vogue man je je préconise euh, pour la suite nga waxal sa bopp rek. parce que seen gars yi li ngeen di wax ci seen réunion yooyu waxal naa kenn dama ne ci li ngeen wax seen réunion yooyu ma ne ak ñay wax ak Macky Sall ñay ànd ñay aw ci émissaire Macky Sall ñay wax ak ñoom Alioune Tine ak ñoom Atepa munoo présager de ça ne prends pas cette responsabilité man loterie wu ma ah présager wu ma asalo wu ma gisaane wu dama ne la état actuel samay information amul benn entité bu bokk ci F24 ànd ci y compris Pastef ñu ci liggéey boo xam ne bii d'accord na ci reportu élection yi en décembre. vous êtes d'accord que politiquement Ousmane sonk buñ ñu koy libéré kenn du ko libéré ci Mali Faro. de ah déglu Ousmane Sonko kenn du ko chantage aussi. non xaaral rek ma ne. dégg ma ne politiquement Ousmane sonk vous êtes d'accord que Ousmane Sonko ak fam adversité am yegg ak nguuru Macky Sall ak ni situation bi tëddee. jour bu ñu ko libéré na sénégalais bu nekk jàpp ne libéré wuñu ko ci Mali Foro on a parlé du protocole de Rebeuss on a parlé du protocole xam nga nag euh, on aura le protocole non, du Cap gis nga politique on aura le protocole Cap Manuel ma ne politique yëfu garmi la ah. waaw man mënuma toog fii di dëggal li ngay wax ah man damay wax rek man li may wax je gis nga déglu ko sax ëpp na ci man ah man je l'assume que comme nekku fii ay waayam nekkuñu fii waaw ah. nga jël loolu teg ko seen der man kay teguma dara seen der dama ne parce que da nga leen ji. ci analyse politique kenn du ko libéré. ci Mali foro man day man day li ma gis. Ah. mooy que Ousmane Sonko ak prisonnier politique yi dañ leen war a libéré sans condition loolu laa mos a wax loolu amul werante maintenant seen dossier naka lañ koy defee ba mu leer ba dootu leen créer benn préjudice loolu aussi d'accord naa ci. d' accord ma ci amnistie pour li ñu luubal xaalis boo xam ne dañ ko jiiñ luubal nañ ko leeral. mais waroo d' accord ci amnistie ak crime aussi. non crime moom c' est le résultat. crime situation déglu rek. crime dañ koy leeral réparé je pense à ces jeunes qui ont les cocktails molotov dans ces dans ces bus là. dama ne la est ce que ñooñu dañoo war a effacer loolu. man mosuma wax dama ne la yow yow muy wax nga ko ba pare bul dellu si ci loolu. vérité réconciliation même bu crime amee. bu ñu ko yóbboo cour d'assises lan la ñuy def xam nga du ñu dekkil ñi deewoon dañuy réparer rek loolu rek moom mun a am réparation wax dëgg bi situer responsabilité yi. réparer mais je te dis que peut-être que le truc va être adopté en ouais, procédure d'urgence euh, est-ce que ça laisse le temps aux acteurs d'identifier non non non ça euh, n'empêche pas non non les vrais coupables c'est pas un problème d'antériorité mën nañu décider def amnistie voter loi d'amnistie libérer prisonniers yi libérer Ousmane Sonko ba pare jël les dispositions nécessaires pour que vérité am réconciliation am loolu mën na am moi si si si je suis élu je vais m'occuper de tout ça dans le cadre de mon plan Diagal c'est un des points je vais m'occuper de tout ça. donc yow euh, d'accord nga ci principe loi d'amnistie bi. ah oui oui loi d'amnistie man j'ai pas de problème na bañ a toucher alalu réew mi rek. mais xam nga ne loi d'amnistie bi ci dialogue bi lay bokk. dama ne la première condition na bañ a toucher alalu réew mi deuxième condition ñu bañ ko lié ak acceptation report ñu bañ ko lié ak dialogue bi xam nga ñun nag dañu am dañu am chance suñu parti maa ngi ci profité bi saluer suñu secrétaire général moo daay ak cadre yëpp gis nga ñun li ñu def nii dañ koy def chaque jour dañuy waxtaanee lépp dañu am ay kàngam yoo xam ne ci côté bu nekk dañ ciy waxtaanee ñu dégager des man lépp lu ma wax comme position c'est une boo xam ne nii suñu ñoo moo tax pour nga jam ñu ci yenn affaire yu sew yi du yomb ñun amuñu benn problème pour que kii indi woon problème yi Sénégal mu fexe ba toog ak jim ko séqaloon ñu calmer situation man loolu je suis d'accord. mais Woukhar est-ce que y a pas un parfum d'injustice c'est-à-dire Sénégal depuis mille vingt et un ak léegi am na plus de cent personnes yu fi décédées. Euh, déjà dañuy wax ne cure la ci ci ci xolu ñi port ñi perte seeni parents bu ñu nee jot ci corps bi dëj seen seen seen doom et puis identifier ñi nga xam ne ñoom ñoo leen def loolu. je le vis directement. voilà après ñu ñu ñu bëgg ñoo ñu bëgg ñoo dugal ci situation boo xam ne euh, dañuy xëy rek ñu ne euh, voilà pour la au, nom de la réconciliation c'est pas c'est même pas une réconciliation nationale c'est une réconciliation politique parce non, ça ne se passera que au pas nom de la réconciliation nationale nañu voté loi d'amnistie entre et ku ñu fi jàpp dans des événements euh, à caractère politique voilà ñu raxas la ba nga set non xam nga boo amee souci ñan ñan ñoo rey xale yi yow kon kay madame da ngay en enfonces une porte ouverte li ma la wax kay d'accord nañ ci les responsabilités dañ ko war a situer wax fi dëgg bi nekk est-ce que xam nga ne yoon juge yi yëpp ñoom fu ñu àtte ci lan la ñuy àtte ci yoon la ñuy àtte de àtte wuñ ci dëgg mën na tombe nag nga àtte ci dëgg mais ñoom kenn santu leen ñu àtte ci dëgg kenn moo mun a àtte ci dëgg muy subhaanahu wa taala suñu borom donc ci yoon ngay àtte ci procédure bi ci fee nga jël décision ci sa intime conviction au nom du peuple nga àtte loolu dafa am limite mën na def sans erreur judiciaire kon quelle que soit la décision de justice il y a une part d'injustice parce que seul Dieu moo mun a def justice et situation amnistie bu fekkee ne dafay apaiser situation bi mën nañ ko nangu mais warul mëdd li nga wax préjudice bi warul nëbb la vérité loolu la wax mais dafa am nag loo xam ne lii alalu réew mi waruñu ko ci boole loolu moom mooy suñu position bi donc aujourd'hui euh,